ci fee bi nga xamante ne amoon na doxoon ci komba Siteu ak Papa mu gis ne yow ak moom yéen ak ñoom yéen a xawoon bokku kaa ndax bi corona bi ñëwee bi ñu ajee seen combat dañoo aj ñoom tamit seen combat ñu gis combat bi léegi mu def ñetti at ñëw ba ci digg géew bi euh, ay fay yu ndaw yàq ko damay jàll fii doo jàll fii fii laay jaar ban sànnante ndënd am ci bi nga ko gisee naka la la def en tant que mbër. waaw loolu bi ñu ko gisee rek kenn rafetlu ko wax dëgg yàlla métti mais man damay masawu coono ñaari mbër yi ñaari camp yëpp parce que làmb dafa métti ñun ñoo xam nañ si dara ñun ñooy mbër ku wàcc sa combat presque deux ans muy Papa di Siteu ku si nekk bëre moo la gënaloon ku si nekk loolu nga bëggoon parce que tamit munoo wàcc sa combat ay mu dem ba ci jour bi ngay sàkku lu ko yàq muy ci côté Papa di ci côté Siteu ñoom ñaar ñëpp amu ci kenn koo xam ne ku ñoom ñaa ñëpp koo ci xool ay préparation am xool leen jour làmb xam ne ñii dañoo ñëw pour bëre si mais nag jaam ak pexam yàlla ak dogalam yàlla moom mooy xool ay mbiram nu ko neex mu ko noonu ñooñu du ma am dara lu ma leen si wax loolu di leen masaw coono en plus tamit di xamal ne maanaam li fa am tamit du lu kenn di rafetlu. mais est organisation bi jàpp nga ne mënu woon gën a yemb parce que euh, fi Siteu di fi Papa Sow di jaar tëggkatu Siteu fa nekk fi Siteu di jaar tëggkatu Papa Sow fa nekk est-ce que jàppoon nga ne noonu bi mënu mënu mënu woon gën a jàkkoonoo. xam nga daanaka wax nga question bi loolu yëpp ci côté organisation bi la organisation bi moo dese normal côté boobu dama amaana peut-être erreur waa CNG bi la. parce que comme ñoom ñoo yor wàllu organisation làmb ji waroon nañ ko mën a organiser noo xamante ni problème boobu noonu mënoon naa ñàkk. mais xëy na peut-être tamit comme li may wax chaque jour rek jaam ak pexeem yàlla ak dogal ma amaana tam lii mën na ci am tamit wala bu ñu ko baaxee xel tamit kon dinañ ci teel a jël seen ay matuwaay xëy na nag lii dafa nekk lu gën. mais man moom li moom lu ma ciy wax ñaari camp yi laay masawu coono en plus message bi ma ciy lancé mooy parce que maa ngi tamit ci côté promoteur bi ñuy wax naan mbëri du du ñu leen téye seen xaalis ak yooyu mais mbër yi bu ñu leen yokkalul waruñu téye seen xaalis dañ leen war a yokkal au contraire parce que lamb ji dafa métti lamb boo waaj ay deux ans nga ñëw ba jour lamb ji mu yàqu du coobare mbëri parce que ñaari camp yëpp koo ci gis tey jii nii li mu def ci lamb ji avance am waaw mun la koo wax kon ñoo la war leen xaalis te lamb ji fees na dell salle bi neen ambiance lépp am na fa yaa ngi dégg man daal li ma ciy lancé message mooy promoteur yi mooy parce que dama dégg benn interview rek mu wax ne amalul ñaari mbëri reliquat loolu mu nekk loo xamante ne aussi tamit man dama koy naqaru dama koy méttilu di wax ni Pape Abdou Fall suñu papa la suñu lépp la ndax man mii sama carrière dafa am lu bëri lu rëy luñ ci joué naa ne sama combat yu ëpp moom moo ko tëgg lépp si samay combat moo ko tëgg xam naa ko muy nit ku baax amul benn pono xaalis du ko booleeg nit wane nag lépp loo gis tam àdduna ay waxtaan la rek mais mbëri nañ xam ne tey jii nii dañ ay coono yoo xam te ne buñ leen yokkalul xaalis bu ñu téye seen xaalis dafa metti parce que man mii di wax yow maa ngi nii ba léegi nii CNG sama reliquat jotaguma ko reliquat boobu ba léegi. wóor naa alxuraan ba léegi nii may wax yow nii sama reliquat génn ko. lan moo waral lool. parce boobu ñu ngi wax ay problème mu siège ak yooyu noonu nee dañ fa am ay siège ñu fa sànni genre affaire yooyu loolu ñu wax. mais dem nañ foofu convoqué nañ bi ñu demee aussi tamit wax nañ ñu loolu ñun d' accord nañ jégalu nañu ba ñu jégalu ñu mais nee nañu dañuy ñëw defar siège yi ñu ne loolu amul problème ñu wax ñu kañ la mais nee nañ ñu ñu déglu leen dinañ ñu woo mais boobu ba léegi ñu ngi leen déglu pour ñu woo ñu ñëw defar chaise yi mais woowuñu. mais loolu tam du problème parce que combat Siteu bi ak Papa Sow bi damaat nañ fa ay chaise ba bëri bëri. waaw léegi nag bu ngeen koy defar ci nan ci yan situation ak yan condition ngeen ko nar a defee. waaw ñun. seen na ne ñaari chaise lañ fa ah, nee nañ ñoom <coughs> ñoom nee nañ xam nañ ko. mais waxuñu leen ko. ko de mais ñoom nee nañ xam nañ li dafa yàqu ci chaise yaa ngi dégg ñoom loolu la ñu waxoon quoi moo tax tam ñoom la ñuy déglu rek comme ñoom ñoom ñoom lañ fi teg tam ñoom ñooy suñu ay kilifa tamit mënuñu lu dul di leen déglu mais tamit lu ma si mën a wax mooy daal en tout cas war nañ ñu jàppale daal ndax tamit mbër mu bëre boobu léegi xam nga dafa met boobu ba ñu teesere li nga xam nga nga am ay bor yoo war a fay am ay affaire yoo war a régler boobu ba léegi amaana tey jii sax ñenn si ñi lay ñaanal sax wala yenn gars yi nga war a jox xaalisam mën nañ bañ a mais ñun du si ñun suñu xaalis moo nekk CNG ñoom lu ñu war a régler lu bëri ba léegi mënuñu si régler dara wax dëgg yàlla loolu tamit ñu si lancé appel di si ñaan xam nga ñu jàppale ñu daal wax ñu ban jour la ñuy ñëw defar séeréer ñu defar ko ñu mën a jël suñu reliquat mën a régler suñu yenn problème parce que yàgg na aussi tamit waa